tele lañ ko takkal Bassirou Diomaye Faye plus correct que lui tumeur mi ngi ci kaso bi Fadilou kayta da nga mës a dégg Fadilou Keita wax lu wax lu irrespect ndeysaan ku baax ku baax da koy gis danga koy naw respect mi ngi ci kaso bi tëdd hmm. man su ma xoolee ñooñu ñëpp xam naa ne man boo mooy sama sama bës a ngi ci bësi kon yow dara dara yaa ngi xalaat ni mën naa génn fii ñu ne ma kirti ma kirti lu ma lu ma ci mën je ne peux je ne suis pas absous d'une injustice de ce régime. d'accord mais euh, procès Adji Sarr Ousmane Sonko boo gisee mu wax la loolu sax moo di ne moom nee na du dem ñu ay boroom xam-xam yu bëri di ci wax ni mën na dem ba mujjee sax ñu fëgg ko mandat ne loolu aussi moo tax ma laaj la li ma lay wax ne est-ce que mu ngi bàyyi xel yooyu noonu est-ce que dem aussi gënut ci moom je pense que ne tey li ñu am ci avocat yoo xam ne dañu maîtriser li ñuy def hmm. kenn xamut ni mu toll foofu moom ñoom liñ ñu ci wax rek la ñu doxal ñu am ci avocat yoo xam ne ils ne demandent pas un sou ñëw andi seen expertise ñoo xam ne ils ont l'âge de de nos parents li ñu def ci baro kenn xamul nu mu foofu on a des conseils yu nga xam ne on on va les écouter te lu ñu wax la ñuy apprécier loolu la ñuy doxal. maanaam maanaam démarche Ousmane Sonko jël muy ne du ma dem loolu aussi na lañ ko mën a jàngatee. mais am na si droit le plus absolu. d'autant plus que bu ñu considérer lii ça c'est lii lii mascarade la ce procès là ñu waxante dëgg mais c'est l'occasion aussi pour ngeen wane ne mascarade la non mais ça a trop duré ça a trop duré cette histoire là loo xam ne en fait c'est dans un pays sous-développé rek la affaire bii mën a egsi fii parce que ak lu mënti xew enquête scientifique ak professionnelle mooy définir qualité enquête la science et les professionnelle Dans ce dossier, il y un scientifique et un professionnel qui ont déjà donné leur avis. Le professionnel, c'est le gendarme. Mhm. Un professionnel aguerri. mu nga xamante ne nii cas yi li traité kenn xamul nu mu moom moo def rapport wax li mu wax mhm. donc c' est le professionnel à parler bi ci des un scientifique ku nga xam ne dafa dem jàngi science ñëw def auscultation am bind notam mhm. donc le professionnel et la science wax nañ pourtant on continue la politique politicienne lii moo tax ñun duñu développé wu duñu avancé parce que réew mu la gën a gëm xam-xam ak liggéey moo la gën a avancé pourtant dossier dossier bi kat ak borom xam-xam ñoo njëkk wax ci dossier bi ñu jël seen wax ne ko ñukk ni yàqagu naqari di politique ay bakkan rot ñu perte temps ñàkk xaalis après on se demande pourquoi on est pauvre après on se demande pourquoi ce pays n'avance pas ce pays pas parce que bés bu bu ñu yeewoo da ngay gis xam ne pexe da gis dëgg ne fen da gis liggéey ne yëfi yàmbar da ngay gis yërmande boo war a dawal nga def égoïsme ak hypocrisie bu mot sëkk réew nag boo ko tegee ci ay pexe boo ko tegee ci pares teg ko ci hypocrisie teg ko ci yooyu noonu dellu ginnaaw ngay def comme tout pays yëpp lay raw parce que au moment wu yaa ngi nekk di njuuj njaaj naka laay naka laay amee ci ci jën bi xaalis yeneen pays ñu ngi wut seen borom xam-xam yi neneen naka la ñuy amee alal ci géej gi borom xam-xam yi wax leen plan stratégique ñu jël plan bi jël seen ressource matière première dem lebi financer commencer produire jaay pendant ce temps deux trois familles africaines ñu ngi ñu ngi ñu ngi jël seen alal yóbbu ko Suisse fu nekk di jaay les riches nga dem ci dëkk yooyu gis ne le petit pêcheur portugais wala espagnol kër gi mu yor bateau bi mu yor niveau de vie mu am. mais des des fonctionnaires africains duñ ko am lu lan lan moo leen ko may parce que dañoo doxal xam-xam doxal dégg nangoo liggéey kon fi am yërmande seen biir tout simplement le développement c'est pas nekkul lu extraordinaire moi j'ai eu la chance de faire vingt ans à l'extérieur du pays et je vois tous les jours j'ai vécu avec des français des américains gënuñu gënuñu sénégalais yi dàquñu liggéey sénégalais mais malheureusement organisation fondement yi ñu teg suñu organisation sociale fondement yi ñu teg suñu organisation politique fondement yi ñu teg suñu organisation économique fondement yi ñu teg suñu aménagement d'un territoire mooy nekk fondement yu faux nanguwuñoo teg mbir mi ci xam-xam li borom xam-xam yi sénégalais yi dëppoo nañ ko def parce que nag nañu wax dëgg fii amul kenn ku xam lépp mën lépp xam lépp wax lépp kooku kenn mënu ko mënoo nekk Doudou Bakassar nekk Madaga nekk Gorgui Sambéraye yàlla mayul kooku lenn hmm. donc buñ ñu la jiitalee c'est parce que dañu gëm ne yow sa biir xol ku ci ub buñ ko ubbee Sénégal lañ ci fekk ba noppi lépp lu ñuy def dinga seet lan moo gën ci réew mi ñu def ko li gën ci réew mi nag du yow yaa xam lépp buñ ne question économie numérique sénégalais ya ko jàngi am ci expérience ñoom ñoo lay wax ne la fii la Sénégal war taxaw buñ ne du territoire Sénégal ya ko jàng sénégalais ya ko jàngi ñoo naan la fii la réew mi war a taxaw and so on and so on loo jël rek suñu géej gi ñu ne la Maroc lii la def Espagne lii la def Portugal lii la def ñun mën nañ def lii nii lañ koy defee nga ne ay ca leen njiitu réew du du du du ki du fi ki fi ëpp xam-xam mooy ki nga xam ne ñëpp jàpp nañ ni mooy ki wóor ki pas pour rien que yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu doon ko wax al amin ku wóor ki mu nit ku wóor mooy luñ ko dénk la ca mbooloo mi gën a dal seen xel loolu leen defal d'accord loolu mooy njiit c'est pas compliqué ñu may xamal ni waxtu wu ñu cërale woon léegi mu jeex mais dinañ ñu may ñu waxtaanee benn ponk bu nga xam ne aussi ci sortie Ousmane Sonko bu mujj bi waxtaanee na ko uh-huh. mu di euh, tentative euh, d'assassinat bi nga xam ne uh-huh. ni vraiment uh-huh. euh, ñu bëri àddunañ ci aussi ndax résultat yi ñu promettroon fësal na ko effectivement nee na bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko que ni dañ ko bëggoon a faat dañu bëggoon jël bakkanam ginnaaw bi mu saytoo mbir ma ca bitim réew ñu bëri aussi euh, di ci laam-laam yi est-ce que vraiment euh, nooyul lool est-ce que yombul lool Ousmane Sonko ni nga xam te ne noonu la doxalee loolee nga xam te ne accusé na ko les forces de l'ordre nan nga ko jàngatee. ah mais lim def man su ma doon à place la laa def parce que bu fekkente ne wóoluwuloo nguur gi wóoluwoo wóoluwoo ko koo xam ne day ñëw fekk la sa oto mu toj oto bi génnal génn moom mu dóor gaz ci biir man j'étais là-bas j'étais sur place. bi ma gisee <laughs> Guy Marius Sagna longu Ousmane ma xool seen bët yi xam naa ne ñii xamatuñ sax fuñ nekk. kon kuy aussi moom tamit ci poson gi la bokkoon non kii kii da nga leen xool mais il ne voyait rien. dañ ko dóor ci biir poson gi lu tax laalul Guy Marius Sagna. ah mais je sais pas. kenn tax keneen ki tamit. loolu mais Guy Marius am na lu mu ci wax. nee na moom mi nga xam ne physiquement amul problème yooyu sax xam na ne jour boobu il a souffert wax na ko après. mais daal liberté wóor mooy sénégalais bu mu doonoon yow nga def ni moom parce que fii nag am problème boo xam ne sa problème de de santé la nga xool réew mi xam ne kat yaa am problème nga dem wuti expertise loolu loolu loolu moom mooy lu évident lu nga xam ne ku ne war na ko def. mais dégg nañ ci sorti docteur Babacar Niang bi Ousmane Sonko nekkoon ci clinique am. Mm-hmm. ak ñeneen ñeneen ñu ci àddu aussi. que ni vraiment lu lu ni boo demee ba koy teg ci ay accusation wala nga koy fësal mhm. war na nekk loo xam te ne nit aussi mën nañ am ay preuve yu leer ay preuve yu boo ah booy moytuwul dinañ def liñ naan paaka kenn du ko jiitu ci mbaram nañ ah xaar rek non wax ngeen ci promettre na ñëw ci moom gën yaatu ñëw na ci moom gën a yaatu ah, non mais kan moo ne na il ne va pas lâcher les les de preuve ba noppi procédure bi ñun pare wuñ de vous avez entendu il va porter plainte et quand il va porter plainte libre au procureur wala au juge bi wara a traiter affaire bi dem ci laboratoire yooyu demander à ce que ñu jox ko xam nañ ñuy def de. mais mais bu ñu jëlee thèse par exemple maître Moussa Diop mi ne man mi mën naa jël sama yére sotti ci ay mbir génn ne Moussa bala Fofana daf ma doon bëgg a empoisonné dem def sa ay laboratoire ñu xool ne effectivement moo ci amoon loolu aussi nan nan lañ ko mën a jàngatee aussi loolu tamit. dafa dafa dafa jàpp ne ñi muy waxal xamuñ li xew ci dëkk bi médico légal am na vidéo am na vidéo bi ñuy dóor bombe bi ci mi ngi fi ñëpp gis nga ñëpp nañu si biñ koy dóor ci oto bi ñëpp ñëpp fekk nañ ko <laughs> ñëpp dégg nañ ko ñëpp <laughs> ko gis vidéo léegi yow yëre bi boo ko jëlee <laughs> ci biir di nga ci fekk ADN Ousmane Sonko pour wane ne yëre bi la solo di nga fekk produit bi ci biir d' accord fii kenn fii kenn dofu fi de ñun xam nañu. d' accord mais ci ñi mu ñi mu teg seen ndodd les forces de défense et de sécurité. Mhm. ñooñu aussi vraiment est ce que tamit jàpp nga ne capable nañu def lu ni mel. mais yoon nañ la justice est devant nous. tôt ou tard dina leeri. tôt ou tard les forces de défense et de sécurité Moussa Bala Fama. waaw waaye nañu waxante dëgg nag xam nga lu ñuy wax fii affaire bu ñu def ci yére. mais combien de gens sont morts dans manifestation manifestations gis. dañu waxante dëgg nag am na y' a quand même plus grave y' a quand même plus plus grave dans ce pays vous avez on a tous été étudiants Cheikh Anta année am na bu nga xam ne des bavures amul benn étudiant des par balle amul waaw ah mais des fois dañuy bëgg rëy dañuy bëgg a Bassirou Bassirou fay lan moo ko rey procès bi ñëp fekk nañ ko des fois dañuy wax mel ni nekkuñ Sénégal en fait Sénégal lañ nekk ah amoon naa mbégte gu mag mag dalal a ci jotaay bi alors looy tàggatoo ak Sénégal yi ñu doon bàyyi xel. j'ai même pas vu le temps passer tellement que yow sa émission dafa dafa dafa dafa dafa neex vraiment j'apprécie. Euh, c'était la première fois. Ouais. donc euh, j'espère qu'il y en aura d'autres. Euh, di leen féliciter ah. pour l'excellent travail Sénégal 7 c'est pas la première fois ma fi ñëw aussi j'ai l'habitude de venir ici. effectivement euh, donc sama kër la. Mhm. donc maa ngi leen remercier bu dee wax ji am na lu ci dëng. Mhm. nit dong la donc ñoom te moom du ñàkk. su dee am na lu ci rafet suñ borom la parce que lu baax moom la ma leen remercier di wax nit ñi ñu gën a góorgóorlu dem inscrire ji ba noppi ñu taxaw seen taxawaay bu mot sëkk parce que li ñu bëgg pour Sénégal bu ko nit ñi àndul def mënuñ mun mënta dem fenn il faut que les idées pénètrent les masses et que ce sont cette masse là qui devienne une force pour pour faire changer les choses encore une fois merci beaucoup pour invitation jërëjëf Moussa Balla Fafana euh, bokk ci cabinet ki nga xam ne mu nekk le président Ousmane Sonko di njiital parti boobu ñu duppee PASTEF les patriotes doon am mbégte gu mag a mag aussi don ci ànd ak yéen yi nga xam te nii yéen ñu doon euh, bàyyi xel di jaajëfal bu baax a baax équipe technique bi nga xam te ne aussi ñoom ñu ci doon gunge moo xam euh, Ismaïla moo xam ki nga xam te ne moo nekk Euh, Mass waaye tamit junior bi doon coiffé lépp jëm ci wàllum euh, coordination beek ñoom seen di leen di jox euh, dig daje àllarba bi ñu dëgmal ci beneen jotaay ci seen jotaay bi ñu duppee na leer jaa ngeen jëf.